yi gënon rafet ci aduna bi la bokkon parce que ñun loolu dañ ko fekke mu rafeton torop tay ñu ñew mu gis mu melni motax bi dekk bi yépp woté nañu genn pour défar bédd an ñun pêcheur yi man en tant que njit ma bëgg ci jitu wa xam nga li c'est un prétexte ndax xam nañ ne déjà il y a un projet de pollution de déchets liquides donc euh, loolu la rek na ba paré ñu ne nak déchets yi c'est à la fois liquide et solide. ñu ne nag bu ñu bi techniquement on va montrer aux gens mën na set. tey yëpp génnee góor jigéen ndaw ñëpp di bale bëgg tefes gi dañoo bëgg tefes dañoo bëgg tefes gi param parce que tefes gi bu leeree lu neex a gis neex a lekk lu neex a gis xam nga neex a lekk bu setee baax ku ñëw da ngay kontaan. ñoom nag ña ngay rafetlu bu baax li ni mel tey ñaax doomu yaraax yëpp. ngir liggéey bi gën a jaar yoon. tey jii bu leneen ñëwoon balaay dugg ci biir dëkk bi ci ñun lay njëkk jot ñun ñu dëkk ci booru géej gi moo daf moo tax war nañ def le tout am ci taxawaay bu rafet waaw seet euh, di dajale sunu mbalit yi di ko génnee di ko tuur parce que oto mbalit yaa ngi ñëw ci koñ bi. ku nekk da ngay jéem rek fi nga nekk nga jéem def li nga mën pour rafetal bee bi taaral bee bi ëllëg ñëpp mu dellu si ni mu war a mel dina dina metti nag. dina metti l'ol mais combat la combat mutuel la il faut le faire tout le temps et puis voilà quoi un jour ça va aboutir. ñu ngi liggéey malit bi mu ngi fi mais lu ñu mën ñu koy def dessa nañ benen journée bu ñuy defaat au mois de juillet waaw yaakaar nañ ne boobu aussi bu ñu ko defee dina gën a baax parce que tey jii gis nga mobilisation bi ñëpp génn nañ yéen a gisal seen bopp dëkk bi yëpp génn nañ muy lébu gi ko ñu neexlee feeraay ñëpp ñëpp ñëpp. bu ngeen xoolee gis ngeen nit ñi ni ñu baree macha allah. ñun ñëpp yaraax lañ dëkk suñu sañoon suñu dëkkuwaay jekk suñu sa sañoon suñu dëkkuwaay taaru kon suñu ci invité ne nañ ko defar raxas ko nettoyé ko kon dañ ciy sawar. te vraiment li ñu bëgg mooy tous les 15 jours wala tous les mois ñu am programme bu mel nii.

sensibilisation bi warul dak fi ba projet bi di démarrer ba muy paré parce que lolu moy accompagnement aux populations yi té ñi nga fi gis ñeu fi aussi da fay ay population artistes sax ñëpp ñeu fekk ci ki nga xamné mom nañu wax ñun waa Hann gardien de la baie de Hann muy Mbacké sé mom mo jël initiative bi c'est pas la première da fa nek programme bo xamante en trois phases la première édition bi jall na deuxième mu def ko fi té gis ngeen ñi nga xam ne ñëw nañ fi def alors lu mel nonu boo amé mon projet boo xamante c'est le projet le plus attendu au niveau pas de Hann mais au niveau de Dakar parce que géej gi Mon na. ba tey ma ngay ñaax askan wi ngir ñu gëna taxaw ci liggéey bi. mais fi malheureusement léegi entreprise dañ ci connecté wu donc lolu bokk na ci li nga xamné suñu préoccupation et sensibilisation bi c'est à ce niveau là Motax genre de travail buñ ko xeeb. dafay liggéey boo xamante ne am solo parce que ñi ngi yé conscience nit ñi nit ñaa ngi xam njëriñu projet bi lan moy porté projet bi et puis dana am lo xamante débat bi fay bo leen xolé yamuñu rek ci sensibilisation mais dañu am des événements à thème amna thématique yu am solo yoo xamante ne koy fi def ni ci di ci participer donc vraiment pour vous dire que en tout cas encore une fois on est très satisfait di féliciter les organisateurs en tout cas Ibrahima Sall qui était le chargé d'affaires notre ami Imoudia ak képp ko xamante yaangi ci won ñom association yu doon amal programme ngir dindi lepp luy mbalit ci baie nekk na lu doomu yaraax yépp di rafetlu ñoom nag taxaw nañu temm ngir xeex bi gën a yaatu ndax dinañu amal yeneen programme lu ñeel lu ni mel